billaahi su ma xamoon ne man maa ngi dégg rythme yi démb si guddi laa doog xam ne aji la fan yëpp maa ngi dégg ay riir ñu naa aji ah, aji saar aji saar ma ne ay waay kii dëkk Fatick suñ ko tayee di def lii ndeketo ki ma xam la ndax aji jubut jubul de képp ku koy jàppale naa nii Ousmane Sonko def leen ndànk jàppale wu ma Ousmane Sonko jàppale wu ma Macky su ma bëggee Macky Sall dem bi mu demoon guddeem laa ko bëggee Ousmane Sonko su ma ko bëggee la muy wax si làmmiñam xaw ma nag moo ne si xolam la muy wax si làmmiñam laa la wax de te doon feebaru réew mi moo tax ma bëgg ko kon nag ñoom ñaar falalu ma kenn jege buy am Macky laa gën a jege ndax moo xëccal waa guddeem courant moo def lépp aji dañ doon déggante ma koy conse lu ne lu ne la ma doon wax ba benn jour muy def ay tojaangam di envoyé ay photo yu bon xam naa dafa jaawale numéro yi bu ko bu ko envoyé ku góor envoyé ma ay photo yu bon fu mu simee ko ba nu ko ndeyam jure lépp maa ngeeg moom comme li ma xam ne lii laa santiro moo tax dindiwu ma ko moto sa vingt jours la mu def noon kon tey nit ñi Sénégal yi jóg di wax a wax a wax wax nañ def ndànk si li ñuy wax ay ma ne la aji éeréer yi nii ne naa leen du tey billaahi la si laa ilaha illaa huwa barke alquraanil karim dara jaay bàyyi salaam laa leen giñal ak su bakkanu doom aji raabi laa leen wax problème yi du tey man mii ak keneen ak keneen ñëpp konoon ñu ngi naan diw rey na wala diw tëdd na kaso aji dem na ñëw ak nit si ñàkk fayda grâce mi la grâce ok ba benn grâce aji dem na euh, accuser nit loolu ndax loolu accusation ne de dafa liggéey weer ba weer bi jeex waa ji bañ koo fay mu dem kër goo weere yére ñu ñëw ñooñu attaqué si ñu fekk ñu ngi toog di attaaya ñooñu ñëw rek mu dugg si kër gi ñun sax xamul lan la ñoo koy tooñ mu jëkk si nii rek waaxu waxut ak kenn teg mbuus ndek ay yére jàmbur la andi noonu ne kook da koo yoreel xaalis bañ koo fay mu jël bagage am noonu ñun tamit ay innocent la nuñ demee ay góor yàlla ni ñun daw bu ko attaque dugg si kër gi ma taxaw suñ benn xar bu ñu yeew laa bu di daaj bi téye ne ku fi ma buti sa waaye buti la ngeen jégal ma gars yi ne ma xaanoo ah, dalal ñu aate mais ba femme bi waxee ñu déglu waxam déglu waxi aji laa ne ko waxoo dëgg da ngay fen ci kanamu gaay aji noppi naa waaw nangam nangam am suñ benn mbokk bu ñëw dëggalaa lool ne aji liggéeyu day wuraalu ginnaaw raay man mii di wax ak yooyu chaque jour de moo may fëgg naam di may ñaan lu ma ndékkee kon dèjà ñun bu ñu xeexatoon ñoo bu ñu demee si yoon ñooñu gañe ñu bu ñu demee si yoon ñoo gañe ñu man de wallaay lancim il faut tamit aji moom man moom gàcci la ma teg man nag du ma wax dara maa ngi bàyyi ay fenkat yi di weex naan moo ko de wala defu ko ma génne vidéo am yëpp billaahi wal kitaabi képp ku doon wax nag di nga raam Ousmane Sonko raamal ko xam ne aji soskat la fenkat la ndax vidéo bi ma yor nii su ma ko ko tegaloon dina gis boppam a ba zëdd de mais ñeme naa taxaw ne du moom ndax xam na ko bu doon saw sa nga tee ko si loxo ne ko kii la mu ne du man sawuma loolu xam naa ko ñun ay mbokk aji xam nañ aji bu baax ñu naa aji Fatick aji naa aji dëkkut Fatick aji dekut fatik, aji mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax euh, Maya fala dëkk gannaaw Fuujuñ dëkk bu si àll yooyu si dëkk yooyu noonu booy dem côté Jirnda dëkk bu ñuy wax Maya fala dëkk doon Jirnda yaa ngi dégg yaayam avant muy gaañu benn militaire moo ko takkoon pa waajo militaire bu amul lu defalut aji pour aji yem si tojaanga yi mu doon def rek la ko doon bañal yére mu jënd xaalis mu may mais dafa dem ba aji mi mën ko andil problème mu bakk mu dem yeb betuma xawma kum bet amna tamit sama morom ño xamne betu len man dem rek dama wacc si liggey ñu ne ma aji mi ngay ni aji na mo def li mané no non aji sar lañ wax ñu envoyer ma photo yi tout ma wacc fi mané mané kon ki tax rew mi yeb kuma xam la kuma jégué di déggantoon mom chaque jour loolu tax doomi haram ji nekk lii tax nangu ta wax ak nit ñi mais nak il faut ñu def ndank ha ah. def len ndank sama gaay yee jambaar lol la li wax rek pour ñu def ndank quoi bu baaxa baax ndax man fu ma déggee ki nekk ay audio France nekk naan waaw kii ay teg ay audio jigéen affaire yi dafa ma jàpp ay réer ndax kooku xamu leen ko lam capable man mii xam naa ko ñeneen xam nañ man suma xarit bu ne Espagne fa moo ma ko yéegee ma ne ma ajiraa bi ma ne ko ma ne ko waxoolu am mu mu xàqataay noonu quoi ne ma xaaral ma woo diw sax diw mi mu bëggoon a taraay def loolu kooku tamit moo xool ko si liñ bi gisuma ko ma rey tëdd ma ne noo mënta nekk ajino mën na amee noonu bës si àdduna si nii di tas réew mi nit ñi di reyante ma xool ndeke moom la ma ne kii nag ñu li tax ma ne kii ngi def ay tojaange ñuy fexe pour yedd ko mu dellu ginnaaw ndax léegi nit ñi ku la dul takk bu la def loo yenn yi affaire yooyu si lañ nekkoon yaagoor aji ñëwaat def yi aji na nit ñi def ndànk si moom na nit ñi def ndànk ci moom ñii di wax fii wax fale ay Ousmane sonkook Macky Sall ak loolu man sa gëw ne ay Macky yi ay loolu ñàkk fayda yooyu dina ci dem sa bayu si tomb ay nita ci ginnaawam rek wala mu doon kompolom ndax moom xel moom mu yore kenn yoru ko mën naa taal réew taxaw fee ku koy miimal na nga def nànk balaa muy bàkkaaloo yenn nit ñi def na ko fi nit ne kooku da koy liggéeyloo weer ndeke 4 jours la fa liggéey ñun ñii ñu see dugg ba ma see am problème ba mag bañ demee ba xam ne dafay fen ñoo replier dellu ginnaaw moom mu dem ba d'accord ne dafa fen ay cinq cent mille franc lu ne maa ko defal naa ko ko bañ mu foyi rek ay mille franc lu ne dama ko doon may mu ndékki toog fi mu toog bañ mu buusee ba ma koy mujjee gis wallaay la xasin euh, maa ko jëlal taxi kalandoo mu dem ba euh, nu mu tuddati sandika mu dem ba syndicat jëlee foofu oto ñibbi bi Yoff du ma ko faate mukk yore benn mbuus gu weex ndax wax dëgg yàlla man liñ liñ doon teg ci deram moo ma doon métti ndax lim amul yaay doon xale ñu bokk noonu rek fu mu dem papa di ji dàqe tantam bi walisam bi bañ ko balee laa la saani ko si bokkoon naa si ñu ko jàpp ak suma benn mbokk ñu dugal ko si kër gi naxanteeg nabu nabu ne du fi fanaan ñaari fan mu fanaan fa jàppanteeg nabu nabu ne da koy génne ñu négocier ak nabu ko baax sagam nabu la të nag foo naa ne ku bugg a xam aji si lu wóor defal nga gannaaw raay nga laajte nabu li ma leen wax nag euh, takk leen ma ko téere dëgg ja muy mujjee ñu bëri dinañu rus ñu def ndànk bu baax ndax ki may wax xam naa ko. tubaab dañoo mos a toog mu ne ma naafeq weesuwul nga xam dëgg ba pare xam dëgg ba pare te yoon nekku ci nga wax ca naafeq weesuwul lool Sénégal na ñun loolu la ñuy dund comme nga fekk papa ak doom di jote nga ñëw wax papa yaa tooñ yaa ñàkk jom sa doom jee am dëgg dèjà loolu naafeq weesuwul donte kat doom jee tooñ sa papa jee tooñ war ngaa jox papa ji dëgg soo paree yedd doom ji ñun Sénégal loolu la ñuy def. da ngay gis gis nga doon nañ fi sëriñ daara kenn waxut kenn jógut kaas sëriñ diine yi kenn déggoo kenn ku si wax sëriñ kilifa aada yi ñu jógewaat foofu tëj fi imaam ndaw kenn waxul il faut ñu def nang kilifa yi tamit jóg artu ñu wax te Sénégal li ñuy dundee léegi dafa doy waar bu ñu ne ŋaañee yonent bi doo dégg kenn ku yëngu bu ñu waxee lu ñu sofaan ci benn sëriñ àdduna yëpp génn waaw sëriñ diw attaque fii dugg na fii ku ne di wax dafa mel ni ñun gëmatuñ yàlla ay ngistan la ñuy dund il faut ñu def nang aji nag man duma ko jàppale si dara ndax def maa beetuloo man dafa rusloo kullu dëre ñoominka dafa rusloo kullu ku dëkk si ndox mi da laa rusloo ndax kii du nit ku baa ñu koy jàppale tamit di wax nañ def ndànk du benn yoon du ñaari yoon man mi di wax ak yéen amul luma ko deful école yam don fu mu ñu naan mille francs rek nga laal ko dama doon kaas di koy dimbale ndax ndeysaan lim doon jirim dama yedd ba sonn ma suma benn mbokk bu mu doon àndal maa fexe bañ baaxante ndax aji daay teg diil di santaas ay nit loolu rek moo ne woon dundam ba ma koy mujjee gis bët ak bët maa ko jëlal kalandoo mu ñëw jouru dimanche dañuy bi Grand man mi maa ko jëlal kalandoo waa ji naan mu ngi France yor na numéro diw tëddëg naa moom waxul dëgg na ma wax aji numéro bi fu mu commencé ak fu mu mujjee wala aji fu mu dëkk ak aji fu mu cosaanoo waxul ben dëgg kooko waxuloo aji ay mbokkam leen ko gën a xam ñu ngi ginnaaw raay papam bi ko jur sax du wax ak aji ndax ni mel ka ko yoroon man maa ci doon wax ba kooku yore ko billaahi la si benn guddi génne na ko maa ci wax wallaay lan si ba kooku dencaat ko si kër gi matu ñaari fan kooku balewaat ko looloo ko yóbbu Grand Yoff fi yé def lii mel nii il faut que ñi tamit defaan nag ñin ñu war a wax nag man su ma xamoon ne aji coow li moom la konoon depuis barkaati dee ma ma déggee coow li laay dugal vidéo bi yëpp si réseaux sociaux ni ñuy gis ko xam ne tamit nañ def ndànk balaa ñuy accuser nit ñi te lii ñi luy raam nag si ñag bi la jëm il faut kilifa diinay artu ndax lii nii dafa ëpp loxo accusation ni ñuy wax nii lépp ci ay pexe la rek tubaab bi tubaab yi lu ne ñuy wax Sénégal yi ñiy yàq Sénégal ñu ngi Sénégal ñi war a àtte ne ñooy àtte dëgg violé weesuut milliards askan bi ñi fi ay nit nit sàcc ko ñu jàpp ñi ñuy changé ay faux billets kilifa yi war a wax waxuñ ki war a àtte àtte ñooñ tëj leen ñu ne ñu ngi topp usmaan bàyyil Ousmane jàppal aji xoolal feebar bu ñuy laam-laami ñaari fan yëpp déggoo waxi corona waxi Ousmane waxi Ousmane waxi Macky waxi aji kon nag feebar bi xanaa du dëgg il faut tamit ñu yeewaat ñu yeewaat déggatoo kaay Idrissa Seck déggatoo kaay keneen kaay Ousmane Sonko rek ngay dégg nañu yeewaat delluwaat suñu xel si yàlla bu baax a baax. waaye kam naxoon jifiir kooku foo doomu nijaay la ci moom mbokk yi jege la. ko ɗe ɗon mbaali du dàll du yére du jiin amul lum ko defaralul du téléphone lu ne defal na ko ko bokkow tamit ñu koy gërëm yaakaar ne moo koy takk jabar ba nit ñi yëpp addoo si takk bi mais nag moom tamit xelam dalutoon ndax nu aji comporto diil yi muy def ak ñu muy santaa di tëj di def ay defam kooku di ci def lu ne mu xëy rek yëkk fi kooku ne yëkk teg ko diil dem yooyu si lay dund si lay dox moo tax ñi ma déggi man démb laa doog a xam ne moom la démb laa doog a xam ne aji raabi la nañ def ndànk na ñuy war a aate tamit nañ bàyyi ñuy def nii gis lañu war a aate aate ko milliards yi ni ñuy jël denc ko war a tabax yi ñi war a faju faju defuñ ko ñooñu jël milliards yi lekk si sëriñ diine yi tamit xam nga ñu bëri dañoo am wàll si affaire yi réew maa ngi yëngu waaw ñu jox la milliard rek nga war a wax dëgg doo wax dëgg war a wax yàlla rek tax doo wax jox la milliard ngeen ne président yàllaa ko fi teg président yéefar yi fi nekkoon di lor nit ñi sax yàllaa leen fi tegoon waaw dëkk bi sénégal dëkk jàmm la di nit ñee fi tëdd màkka ña gën a noonoo yenant bi ñu nga màkka fa yenant bi tëdd ña ko gën a noonoo ñu nga foofu kon nañ bàyyi naan sénégal réewu jàmm la réewu jàmm la dëgg la mais liñ fi gis ni dafa day waar il faut nit ñi di wax ndax kii nii ñuy jëlal paa nañ ko laaj ñin ñu ko xam ba pare balaa wax ji jëm kaw waaw ku baax jégalu rek euh, foog naa ne éti bi ñu yaroo saaga waruñu génn si média tamit di wax waruñu mais li ma xalaat rek ku yaroo si keppaaru bàyyi salaam wala ku siñ bas yar foog naa am na noo mën a comportoo si mandute si jaamu yàlla si lu ne waaw donte ka nag ay du duñu dara nag mais ñu ngi jéem suñ kemtulaay kàttan mais loolu rek lañ si xool mais konoon vidéo aji démb mu ngi si YouTube bi te duma ci nobu dara man mi di wax ak yeen mais lima ci sor mo nek lo mais nak di jégalu nak comme euh, saga yi mom tay xox xawma ne sa saga na ndax wax dafa bëri erreur man nga wax ba paré ta xamo lo wax mais nak il faut nit ñi def nank man audio yi ma déglu ñu naan ay jigéen di wax ben goor naan mu ngay fanat mu ni ma ngay ni numéro ndaw si waxul dëgg kok mom waxul lu lu am jox len ko sama numéro mu jël ma fu man takane mu ne ma ni aji ni, nama wax aji fu mu dëkk ak aji mos na koo gis nam mel ak aji fu mu juddoo kuy baayam kuy yaayam